kaay leen fii ba pare eh, yow déedéet amul yóbbu de bul dem taxawal nii kaay fii kenn demul tey fii ngay taxaw tey kay moom man da kay dem ci dóor bu daal aca pare ngeen pare nga pare nga aca la régie à vous moodu Modou maam Balla nag waaw wala aj xaar ñu des xool li ñëwaat loolu moo war a am incha allah le 12 ci arène national Mame Balla ak caatu yaraax. dama la doon wax dama la doon wax ci Mame Balla bi. waaw. ak tonnerre. waaw. lamba tërë di rek. waaye ay champion yu mag la ñu. waaw tonnerre mi tonnerre mii. toll na jamono ku nu ne tonnerre ngay dajal doo nelaw. dëgg la wala sa waa écurie du nelaw. maa la wax lii. làmb la kenn xamul fu mu jëm. Mhm. Mame Balla mi it ba ma koy fekk géejewaay ca këram. Mhm. booba yàgg na. ndeysaan booba ak léegi war na mat ay douze treize ans. bu ko ëppul. ndeysaan ah. mook Tafa Gueye numéro 2 ñoo doon bëri boobu jeexee fekk naa seen kër. moo tax ma xam ni combat bi combat bu neex la war a doon. rawatina nag ki muy bëreel. eh yow xam yow xam nga ko dugg na fa. gannaaw baatu 11 juillet laay. non bàyyi ma teel rek sant tamit mais tamit amul yooyu. waaw non dafa ndànk xam nga parce que problème mooy li père Begaay wax rek. grand Tafatine ñun noonu la ñu amee expérience. parce que ñoom la ñuy roy quoi. Mm. donte benn instant spécial la ñuy bëri mais suñuy mbokk ndaw ñoo fi dajee journalistes yi xam nga ak communicateurs yi ak sama entraîneur Mbaye Diallo xam ak sama gars yi ma àndal sama waa fan bi ñoom Ousseynou ñoom Assane xam nga li ma la wax ak ñoom Fatma fii journaliste yu nekk ñoom Lamine yow mi Modou Mbaye bébékaay déplacé wu 2S ñëw ba sama kër mm-hmm. kon tey bu taxawee di def ay témoignage ci man man tamit lu ma lu temps bi xat-xat war naa ko mën a remercier di ko ñaan yàlla longu fii xam nga mooy loolu sant baax saa xam nga ko waaw xam nga ko làmb la comme li père wax rek. xam nga xam nga écurie bi mu nekk. waaw fa dugg. waaw mos naa fa dugg. alhamdulilah rabil alamin xam nga ko moom mi fa ngay loolu nga bëgg a wax. waaw noonu laa loolu laa bëgg. Mourou Mbaye. waaw defal li tuut sa waa ji euh, ah, mi ngi baax. ñu tënkoon ci réglement bi mais dans les normes dañu war a gërëm ñëpp doo ko commencé maa ngi jégalu bu baax nag ñëpp di jégalu suñu père bi gaay. waaw xëy na ñun dañ di ay ndaw te fi ñu jugee dañoo yàpp moo tax bu ñëwee fii mënul ñàkk rek ñoom présenté wu nuyoo tuuti. Hmm. comme tous ñu te loolu xam nga day xasan suñu tànk yi. waaw Mame Balla mi li ma koy wax bëriwul <laughs> dafa duggoon yaraax la wax de. waaw duggaat yaraax te du ko jig am fa sens caatu yaraax ngay bëreel xur-xur day yam place mbalaaw balaa fi laa di ko lambal. kii la. loolu fan lay nekk ko mën dama ko bu doole. nekk loolu si ndaw bu daar ndaw koy buddi. waa xaar xaar xuru xuru xuru. xuru la. xur-xur. Ah. day am place mbalaaw. waaw balaa fi laa di ko lambal. ya Modou. ay waxu lébu la de. Modou waaw. moom li ma xam lay wax. waaw man li ma xam mooy làmb ji. waaw arbitre ah. kur fañ yi tàkk. ñu song la nga bëree. waaw boo gisee buntu dem bëree. fii waxu làmb la mais waxuñu waxu waxu lépp ñu ngi ñëw ci suñu mbokk lépp yëpp. waxoo waxu géej. waxuma waxu géej. <laughs> Mourou Mbaye <laughs> du question ko ay waxu lépp ci yooyu ay waxu jon affaire yooyu. voilà ñun làmb la ñuy def. bu fekkee question expérimentale. waaw kii gënu ma nekk intellectuel. <laughs> ñun dañoo toog suñu diplôme toog fii affaire esprit moom jarul ngay jaay. ah da lay mong mong lu. yaa ngi dégg ngay jéem jënd paay ak yooyu noonu man maa la gën a teg fuuf. bu làmb jee nag da nga ne affaire xeel ak affaire bëree. waaw ci caatu yaraax mosoo gis mu nekk tapé ci biir géew su ma jaakaar nag yow du ma teg suma tànk te maam Balla foo ñëw mu wuy si. Eh, eh, da ngay sóob. ma da dama ne da ngay sóob. damay fay te xoolal bu arbitre bi ah. nga dox sama kaw nii di nga xaale freiné. xam nga instant bi fii nii dañuy jëfee. digal parce que CNG moo fi nekk. Mhm. dañoo yab ay nit lañ. Mhm. ñii seetaan mhm. si nekk dañu leen xoolal toogal bu laa bu def dara mais yow gënoo maa ñeme lu xotteeku man ndongo daara laa maa gën a jëmee lu xotteeku fuuf man gënu ma nekk ndongo daara ci daara ja laa yaroo hmm. hmm. barki maam Cheikh Fall te ci kàttanu suñu borom ah. le douze dama bëgg nga dëggal sa bopp lamb jee paase ngay dàq ngay daw taxawal nga sa bopp loolu mooy waxam Baaba Maal tukulóor la dëggal sa bopp hmm. mooy Baaba Maal day la door mu daanu ca géej ki ca ki door mu daanu door mu daanu maa ngi dem toogi e door mu daanu Fatma dóor mu daanu waaye leen foofu dóor mu daanu dóor mu daanu bay balla dóor mu daanu mu daanu dóor mu daanu waaye leen foofu rek dóor mu daanu dóor e bu leen leen faale e non mu daanu jege jege dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu urajaaj ah